soxna Moominatu Mbàkke soxna Moominatu Mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atu 1914 ci dëkk bu sell bi di ndaam daaru xalimul xabir ci dëkk boobu nag di ndaam daaru xalimul xabir la soxna Moominatu Mbàkke feeña jamono di doomu soxna Faati Silla Libaasa ak ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom soxna Moominatu Mbàkke nag am na ñu bokkal soxna Faati Silla Libaasa ak ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñu mën cee ràññee magam ja Sëriñ Siidi Muhammad al Abdu Xaadir Mbàkke ibnu soxna Faati Silla Libaasa ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ak rakkam ja soxna maskuratu mbàkke bintu soxna faati silla libaasa bintu sëriñ tuuba xaadim rasuul ñaar ñooñu nag la bokk ak soxna faati silla libaasa ak ku baax ki na ñeneen nag ñum bokk ak soxna faati silla libaasa te bokkuñu ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul ndax soxna faati silla libaas mi ginnaaw bu mu nekkee ci loxoy ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul ba sëriñ tuuba xaadim rasuul nag di dem ci géej gi ci atum 1895 soxna faati silla libaas mi dafa bokkoon nag ci soxna yi nga xam ne nii ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul bàyyi woon na leen leen nag ngir ñu dem nag ci yeneen i loxo booba nag soxna faat si la libaas mii nag mi ngi dem nag ci loxoy ku ñuy wax sëriñ seexu buso ibnu sëriñ am na ca njaboota ñu mën cee nag ku ñuy wax sëriñ mbàkke faati buso ibnu soxna si la libaasa ibnu sëriñ seexu buso ak ku ñuy wax sëriñ abbas buso ibnu soxna faati si la libaasa ibnu sëriñ seexu buso ak ku ñuy wax soxna polle buso bintu soxna faati si la libaasa bintu sëriñ seexu buso ak ku ñuy wax soxna sofi buso bintu soxna faat si la libaasa bintu sëriñ seexu busoo kon soxna fat si la libaasa ñeenti bant yi nag la am ak sëriñ seexu busoo soxna moominatu mbàkke nag juróom benn nag la bokkal waajuru jigéen ak moom muy juróom ñaar muy sëriñ siidi mohammed al abdu xaadir mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul soxna maskaratu mbàkke bintu sëriñ tubaa xaadim rasuul sëriñ mbàkke faati buso ibnu sëriñ seexu buso sëriñ abbas buso ibnu sëriñ seexu buso soxna polle buso bintu sëriñ seexu buso ak soxna sofi buso bintu sëriñ seexu buso ñii la soxna moominatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul soxna faat si la libaas laataa ñuy xuus nag ci mbirum soxna moominatu mbàkke bintu sëriñ tubaa xaadim rasuul ñu wax leen rek waajuram wu jigéen wii di soxna faati si la libaas nag moom mooy kan ndax doomu sëriñ libaas si la la bi matee dem kër moom soxna faat si la libaas ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul nag lañ ko jébbaloon ba tax na kii di ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul nag am na ci njaboota ñu man cee ràññe sëriñ siidi mohammed al abdou xaadir mbàkke mu bokkoon itam nag ci doomu sëriñ tubaa xaadim rasuul nag yi mag sëriñ siidi al abdou xaadir mbàkke mii sax bi mu génnee àdduna ko denc ci wetu maamam ja sëriñ bu Bousso sëriñ Siidi Mouhamed Al Abdou Khadir moom itim lenn itim nag ci ay rakkam itim nag tudde nañ ko doom ñu mën cee ràññee Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke ibnu sëriñ Touba Khadim Rasoul ndax sëriñ Mouhamed Mbàkke moom sëriñ Baara sëriñ Siidi Mouhamed Al Abdou Khadir Mbàkke lañ ko tuddee Cheikh Mourtada Mbàkke itim nag tudde na magam jooju itim doom di sëriñ Siidi Mouhamed Al Abdou Khadir Mbàkke waajuram wu jigéen woowu nag di soxna Faat Sila Libaas ginnaaw bu mu amee sëriñ Siidi Mouhamed Al Abdou Khadir Mbàkke moom ci loxoy ku baax ki sëriñ Touba Khadim Rasoul dafa jóge woon nag dem nag ci sëriñ Seexu Bousso xaakim nag ak njaboota ñu mën cee ràññe sëriñ Mbàkke Faati Buso sëriñ Abbas Buso soxna Polle Buso ak soxna Sofiyatu Buso ginnaaw bu sëriñ Seexu Buso nag génnee àdduna ci atu 1912 ca at ya ca topp ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itam nag dëkkoo waatoon na soxna si am ci nag ku ñuy wax soxna Moominatu Mbàkke ak ku ñuy wax soxna Maskurutu Mbàkke ba tey soxna Faat Sele Libaas nag moom mooy kan ci ñi ko xamul ba nëgëni bokk na itam nag ci soxna yi sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul njëkk a dël nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa mu nekk itam nag ci kër gii ñu moomale doomam nag di soxna Muminatu Mbàkke soxna Farsile Liba di jigéen nag ju man góor ba tax na itam nag mbooloo mi nga xam ne nii ñoom lañ ko joxoon nañu tudde leen ay saa xamoon nañ ne kat doomu sëriñ Libaas bi liggéeykat la woon itam nag te baykat itam nag la woon loolu itam nag tax na nag ginnaaw nag bu ko seexul xaddiim nag dëlee ci dëkk bu seel bii nag di Touba ci fi mu dëkkoon nag ci Touba nag di marché Ocass ay toolam nag la woon ndax daana fi bay ci diir bi mu nekkee woon sax ci dëkk bu seel bii nag di Touba nag daa bayee nag ci marché Ocass soxna Farsile Libaas itam tool yooyu liggéeyoon na boo xam ne ni saa bu nawet bi masaa jeexa li mu bay lépp nag ci la koy sëf yit ko nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim ci njaareem ginnaaw tool yooyu nag nekkoon ci marché Ocass itam amaatoon na yeneen i tool fi tolloog tëli bu bees nag ak raay bi su soosu nag daaru marnaan nag la tuddoon waaye soxna Faat si la libaas nag fetto nag la ko daa woowee foofu itam nag ay toolam la woon ba nëga ni itam nag ak njabootam itam nag ñoo ko yor waaye njabootam gi ko yor itam nag fetto lañ koy wooyee ba nëga ni sëtam bii ñuy wax soxna Baali Mbàkke bintu sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke moom moo fa féete tabax daaray alxuraan ju mag a mag a mag di wéel nag ndonal maama soxna Fat Sylla Libaas ak waajuram soxna Moominatu Mbàkke lépp loo xam ne nii itam nag mas na faa ñoree baax ki Sëriñ Xaadim Rasuul itam nag la koy yit ci njaareem ba tey soxna Fat Sylla Libaas nag ci ñi ko xamul bu baax nekkoon na itam nag liggéeykat nekkoon na itam nag yarkat ba tax na itam nag li ñu tudde yi ñuy ràbbu bokk na itam nag ci soxna yi ko njëkk def ci yoonu murit sëriñ Touba Xaadim Rasul ba ni sëriñ Touba Xaadim Rasul génnee àdduna ci atum 1927 mu wéy nag nekk nag fi ko sëriñ Touba Xaadim Rasul nag di Touba ci këram gi wuuf marché Ocass nag di kër soxna Moominatu Mbàkke bintu sëriñ Touba Xaadim Rasul ci kër googu itam nag la soxna Fat Sylla Libaas génnee àdduna ci atum mu dëppoo woon nag bisub ajjuma juróom-ñaari fan ci weeru baraxlu ci atum ci gàddaay gi ajjuma juróom-ñaari fan yi baraxlu ci atum ci gàddaay gi dëppoog muy vendredi 5 février 1960 la doomu sëriñ Libaas Silla bi nag génn àdduna di soxna Fat Silla Libaas ñu yëgal ko doomam ja Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ndax booba itam moo nekk xalifa général des Mourides ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi mu génne àdduna itam nag ci kërug boppam gi nga xam ne nii mooy kër soxna Moominatu Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Xaadim kër gi itam nag matoon na téeméeri mètre carré te képp ku fi masaa nekk itam moom moo lay dundal moom sëriñ tubaa xaadim rasuul ak sëriñ muxtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul moom soxna si la libaasa doomam ji nag di soxna moominatu mbakke bi matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ tubaa xaadim rasuul nag moo ko dalal alxuraanul karim ci njaareem ginnaaw bi nag la ko jox sëriñ moor xalima géey ci njaareem ngir mu wéel nag am njàngum soxna moominatu mbàkke ginnaaw sëriñ moor xalima géey ci njaareem jébbalaat nañ ko sëriñ ndaam abdourahmaan loo ci ndaam daaru xalimul xabiir ngir nag mu mokkal alxuraanul karim ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag la mokkale moom soxna Moominatu Mbàkke ginnaaw bu mokkalee alxuraanul karim ci loxoy sëriñ ndaam Abdourahmaan Lo moom soxna Moominatu Mbàkke maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke daaru mi waajuram moo ko jàngal nag lii di xam-xam ginnaaw maam Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci wàllu xam-xam dem na itim nag ci sëriñ Mbàkke Buso ngir wéyal nag ak njàngum xam-xamam doomu Seexul Xadiim bi nag ci ñii la jaar ci wàllum njàng soo delloo nag ci mbindum sëriñ Moodu Jóob ci marsiya nag bu mu defal soxna Moominatu Mbàkke nag ginnaaw bu ñu soxna Moominatu Mbàkke nag dëddoo mag ñuy cay leeralal nag turu soxna Moominatu Mbàkke mbàkke woowu fi soxna moominatu mbàkke nag jaar nag ci wàllum njàng ak lenn itam nag ci jikkoy soxna moominatu mbàkke nag ñu teewlu ko yéen diglu leen sang bu jigéen bu tedd laay bëgg a way ba ñëpp xam ki tedd man Modou Diop tuut naa way ko moo di kenn du ko jeexal soobu di kookoo di géej mooy kësatoo ci maam libaas ak ma xaram yii ñaari maamari cosaan te am xorom mooy soxna moomi mbàkke bintu xaadim tey doomi soxna faati kookaay yaaram diglul ma wax la ci mbiram lu tuuti tuuti moo doon donn Cheikhu Bamba fil imaani donn ko fil islaami wal ihsaani imaan ja jiitu nag dikkam fii duniya dinaa la jox firnde ju wér ci mbir yaa bis bam ñëwee duniya ci aama day xashi Cheikh Bamba wax ci moom lu rëy lu dul sosi Cheikh Bamba laaj wamraatan ca saar wa muminatan lañ tontu moo di tur wa Cheikh Bamba naa jigéen gu yor cërub góor mooy ki la feeñ tey moo taxoon mu mën góor wax nañ ne Cheikh Bamba ko tudde boppam bi ismihil muminu dolli ko ngëm washhad dahra bi anni muminu wa muslimun wa muhsinun wa udminu diglul ma wax la fa mu jaar cim njàngam Cheikh Bamba mooy ki ko dalal ci boppam wa baadahu sëriñ mamar xalima fii jurbelin moominatoy salima gannaaw ba seyqu abdulo mam ndaamu daarul alimi kooka mooy imaamu gannaaw ba maam ceernoo ko jàngal xam-xam am na ñeneen ci foore kii moo am jom aalimatun aamilatun taqiya waariatun saabiratun zakiya allaamatul imaani moo ko boole bi sabri wa taqwa maa tawkiili ginnaaw ba mu jàng jàngee ba noppi nag mu wéy nag nekk nag ci loxoy waajuram soxna Fat Sylla Libaas wéy itam nag topp nag ci magam yi nga xam ne nii kat ñoom la fa Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bàyyi muy Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ba nim matee dem kër magam Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag moo ko yóbbu kër boole kook doomu nijaayu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bii ñuy wax Sëriñ Mbàkke Buso ngir mu dëkkoo ko ba tax na soxna Moominatu Mbàkke nag am nag njaboot ak Sëriñ Mbàkke Buso ñu mën cee ràññee soxna Maam Faati Balla Buso bintu Sëriñ Mbàkke Buso bintu soxna Moominatu Mbàkke soxna Maam Faati Balla Buso Bousso mii la sëriñ Mbàkke Bousso faye waajuram wa di soxna Faati Balla Bousso soxna Moominatu Mbàkke nag amaatoon na fa beneen bant bu ñuy wax soxna Barakatu Bousso bintu sëriñ Mbàkke Bousso bintu soxna Moominatu Mbàkke soxna Barakatu Bousso mii sax moo toog toogaayu soxna Moominatu Mbàkke amaatoon na fa beneen bant itam nag ci loxoy sëriñ Mbàkke Bousso muy kuñ doon wax sëriñ Isaa Bousso ibnu sëriñ Mbàkke Bousso ibnu soxna Moominatu Mbàkke ñetti bant yi nag la soxna Moominatu Mbàkke am nag ci loxoy sëriñ Mbàkke Bousso mu wéy nag nekk nag ci loxoy sëriñ Mbàkke Bousso ba ni sëriñ Mbàkke Bousso génnee àdduna ci atum 2006 magam cheikh mamadul faadal mbàkke moo ko jébbal nag doomu baayam bii ñuy wax nag sëriñ moodu awa balla mbàkke ibnu maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru soxna moominatu mbàkke nag dem fa nag wéyal itam ak nekkinam ci wàllu kër mook sëriñ moodu awa balla mbàkke itam nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññe sëriñ baara mbàkke ibnu soxna moominatu mbàkke ibnu sëriñ moodu awa balla mbàkke soxna baali mbàkke bintu sëriñ moodu awa balla mbàkke bintu soxna moominatu mbàkke soxna maam faati mbàkke bintu soxna moominatu mbàkke bintu sëriñ moodu awa balla mbàkke ak sëriñ seexuna Moustapha Mbacke ibnu soxna Moominatu Mbacke ibnu sëriñ Modou Awa Balla Mbacke ñeent bant itam nag la am ginnaaw ba mu nekkee nag ci loxo sëriñ Modou Awa Balla Mbacke mu wéy nag nekk nag ci loxoy sëriñ Modou Awa Balla Mbacke ba ni sëriñ Modou Awa Balla Mbacke génnee àdduna ci atu 1982 laataa nag sëriñ Modou Awa Balla Mbacke nag di génn àdduna lu takkoo takku nag moom soxna Moominatu Mbacke nag def na ko ci ron sëriñ Modou Awa Balla Mbacke mii dëkk bii sëriñ Modou Awa Balla Mbacke sanc dañ tudde ko Sar Saara ginnaaw bu ko sëriñ Modou Awa Balla Mbacke sancee soxna Moominatu Mbacke itam xaadim nag daana fa dem dëkk bi nag bu njëkk ñi ngi ko daa wooye ngeer ndax garabug soon gu mag a mag a moo fa nekkoon waaye soxna moominatu mbàkke nag moo ko tudde sarsaara ngir nag di barkeelu ci sarsaara gi waajuram sëriñ tubaa xaadim rasool nekkoon kon loolu moo waral nag dëkk ba tudd sarsaara waaye bu njëkk ngeer fàkk lañ ko daa woowe dëkkub sëriñ fàllu mbàkke asujey bii ñuy wax daaru raxmaan tem nekk nag ci wetu dëkk bii nag di daaru muxti ci digganteem ak misra soxna moominatu mbàkke nag moo ko tudde daaru raxmaan laataa muy tudde dëkk boobu nag daaru raxmaan dëkk bi nag ñu ngi ko daa wooye gudd péey soxna moomi Muminatu Mbàkke nag moo ko tudde daaru raxmaan muy daaru raxmaanu sëriñ fàllu mbàkke as sujeey ginnaaw ñaari dëkk yooyu itam soxna Muminatu Mbàkke bintu sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul sancal na boppam nag ab dëkk bu ñu tuddee nag Madina Madina nag mi ngi ci wetu dëkkub sëriñ Tubaa Cheikh Abdou Lahad Mbàkke bii ñuy wax Tubaa belal foofu itam nag nekkoon na fa di yar di jàng ak di jàngale mbooleem dëkk yi nga xam ne ni soxna Muminatu Mbàkke itam nag jaar na fa daana fa jàngale itam daa fa yare taxawaloon fa itam nag daaray alxuraan ju mag a mag a mag ngir wéel nag ndonal waajuram Xaadim Rasuul Njaasaan ak dëkkam bi nag di Madina kër waajuram gi nekk ci marché Ocass itam nag ci loxoy soxna Muminatu Mbàkke itam nag la nekkoon suuf si waajuram daa bayee itam nag di soxna Fat si la libaasa di ci wetu télé bu bees nag ñu gën koo xam nag ci fettoo mbooleem yooyu ak yooyu itam nag soxna Muminatu Mbàkke itam nag taxawaloon na fa daaray alxuraan ju mag a mag a di jàng ak di jàngale ndono loolu kat la fi seen waajur wa Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bàyyi waajuram soxna Fat si la libaas itam nag ci loolu rek la ko yar ay magam yim xam ginnaaw Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itam nag ci loolu dong nag lañ ko doon toqantal fi mu jaar itam mu ci Sëriñ Mbàkke Buso ak sëriñ Moodu Awa Balla itam nag ci loolu dong itam nag lañ ko yar moom itam nag kon loolu dong itam nag la xam moo tax itam nag képp kuñ ko joxoon muy saa bàjjen ci loola itam nag la la toqantal ci la la yar daaray alxuraan yooyu mu taxawaloon itam nag ba nëgën itam nag mi ngi dox ndax daaray alxuraan ji nekk nag ci fettoo di suuf si nga xam ne nii moo nekk nag ci wetu tëli bu bees ak raay bi doomam ji ñuy wax soxna Baali Mbàkke bintu sëriñ Moodu Awa Balla moo fi nekk itam di wéel daara ji doomam ji ñuy wax soxna Maam Mbàkke déndéy bintu sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke moom it nag ma nga déndéy di wéyal ndonal waajuram li soxna Muminatu Mbàkke nekk itam nag ku ràññeeku nekk itam nag liggéeykat ndax waajuram wu jigéen wi di soxna Fat Sylla Libaas itam nag ci loolu la ko yar ci loolu itam nag la ko toqantal ba tax na bi toogee toogaayu soxna Fat Sylla Libaas moom soxna Muminatu Mbàkke mbooleem ndono nag lu ko soxna Fat Sylla Libaas bàyyee woon itam ci ndono loolu itam turam soxna Faat Sylla Libaas ku daa fob nag gàncax gii nag di ñore ci réew mi la di ko nal nag di ko def ay jus gàncax googu daa ñore ci réew mi mu ko daa nal nag daa ko def ay jus ginnaaw bu fi soxna Muminatu Mbàkke nekkee itam nag daa na ko wéel doon ne ko nag ca waajuram wa loolu itam nag tax na mbooleem nag ñim séqaloon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul saa bu weeru koor gi masaa teru moo leen daa jox nag lu ñu ndogoo rawati na nag liñ tudde junjeer ji ba tax na doomu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul yi xamoon nañ ko ba saa bu weeru koor masaa teru junjeeru soxna Muminatu Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Xaadim rasul bi nag lañ daa xaar loolu itam nag soxna Muminatu Mbàkke nag wéyal na ko ci diirum nag lim fi nekk ginnaaw bu mu fi bàyyi ko nag doom ji ko wuutu nag di soxna barakatu buso moom la lum doon noo ca waajuram soxna Mbàkke na ko soxna Muminatu Mbàkke nag daa ko defee daa ko nalal boppam nag ci loxoy boppam ya soxna barakatu buso itam nag noonu la koy defee ndono la lum doon noo ci waajuram soxna Muminatu Mbàkke yar ak jàngale ak liggéey boobu nag soxna Muminatu Mbàkke nag daa far tax na daana wax ne man soxna Moominatu Mbàkke de mënumaa garanté moomi mu rafet waaye bépp moomi muñ ma tudde lépp lu la war nag ci wàllub liggéeyu biir kër itam nag da ko xam da nga man te santaanay suñ itam nag da koo def ni mu ware waaye moomi mu rafet nag munuma koo garanté loolee soxna Moominatu Mbàkke nag seede woon ci ay turandoom képp kuñ tudde soxna Moominatu Mbàkke wala kañ la tudde ñu tudde ko soxna Moominatu Mbàkke war ngaa góorgóorlu nag ci garanté bi fi sa bàjjan bàyyi muy moomi mu rafet moom suñ boroom nag moo koy tànn waaye moomi mu xamul lu ko war nag ci wàllu liggéey moomi mu xamul santaane suñ boroom yi du ko am képp kuy moomi nag war ngaa góorgóorlu ba fuñ la gisee xam ne la sa bàjjan waxoon yaa nga ca mu nekkit bindkat moom soxna Moominatu Mbàkke ndax bind na lu takkoo takkoo takku nag ci nekkinam ginnaaw kaamilu alxuraan bi mu bind bi mu mokkalee alxuraanul karim bindaatoon na beneen kaamil moom soxna Moominatu Mbàkke bi sëriñ Mbàkke bu sa nag génnee àdduna tam ko doon liggéeyal nag ci wàllu kër ci diggante boobu mu doon liggéey nag ci wàllu kër moom soxna Moominatu Mbàkke nag bind na ci ab kaamil bind na itim nag ay way moom soxna Moominatu Mbàkke wayu takkoo takkoo takkoo takku ñu man nag ba ci julli loolu lépp itam na soxna Muminatu Mbàkke nag mi ngi ko bind doon ko jàngal nag ñi nga xam ne nii moom moo leen yar ci biir këram ñu teewlu nag mbind ñëw fii nañ ko jàng bu wér te saa yu war nga daal koy def te bul ko sikkal te ndax mu sell nga koy defee yéene jàng bu wér dafa wolof dafa lay tiimeet lu lay suturaal ndax su xëbbi ko jàppum benn benn masaa sa bopp muy tàmbalee ci ndox ma wan la Macky Sall takub bi koy dalee cib jumbo ba egg si ci wóom lu fay tilim sotti cam ndox lépp na nga ko setal nga door a rag sa bombam ñetti tànk yu wér def ndox ñetti tenqal sa ndeyjoor teg ca nopp wéer te def ko nopp càmmooyam rag ba ci wóomam tilim raxasal wetuk càmmooñ nga teg yeelam ya rag reer sangu yaram way yooyu nag la soxna Muminatu Mbàkke bindoon ngir ñi nga xam ne nii nag dañoo bëgg nag di sangu farata nag te munuñu ko ginnaaw bu mu jógee nag ci njàngaleem sangu farata waxoon na itam nag jullit bi wala bindoon na mën a jàpp wala naka lay def nag ba jàpp mën a wéyal nag santaaneb suñ borom bi ci wàllu julli ñu teewlu nag li soxna Moominatu Mbàkke bindoon nag ci ay way ci wàllu jàpp bismilaahi ñu jublu jaamu fekk fu mu doon ci ay wax ak jëf te ñaan buur nan ko far nu jubal ma wax la nooy toftalee am jàpp boo ko xamul ubbil sa noppi tey te def ci ba ngay njëkkee te njëkkee pas-pas ma def ko fu set booy tàmbuleem jàpp yow mi ñetti yoon raxasal galaxndikul ñetti yoon nit yoon saraxndiku wéy te fiiru yoon wu ne sëlmul yetti yoon raxasal te ragg tenxam ba ci concoom lu mat yetti yoon masaa sa bopp masaa say nopp li nga matal te ragg say tànk ba mu tooyal sa ñaari dujam muy ñaari lax yi raxas na yetti yoon tamatal noonu itam nag ni la ci soxna a Mbàkke nag wéelee jullit bi nga xam ne ni nag dafa war a julli lan mooy faratey julleem ak suñ boroom itam buur bi tabaaraka wa taala buy julli naka nga ko war a respecté ak santaane bi nga xam ni nag suñ boroom santaane na nag ci julli te nga war koo def nag te bañ cee séentu dara ngir suñu boroom ñu teew la itam nag li ci soxna Muminatu Mbàkke bind yómmee di xam lu ni ñuy jàppee ko sangu ba xam julli waral dee sellal cër yi dee ko faral xamal ne ndab buñ ko dee sellal egsi jugal ndax julli yàggul du yàqal kenn wéy ci ndigal moo ko faral njor moo ko jotal la leen wax xadim na yooyu nag bokk na ci lenn li nga xam ne nii soxna Muminatu Mbàkke nag moo ko bind doon yar nag mbooloo mi nga xam ne ni dañ ko koo jébbaloon noonu mu ko waaye itam nag ni la ko mbooleem gone goo xam ne nii nag yar na la ni nga ko mokkale woon ginnaaw boo ko mokkale itam nag daa nga ko jëfee saa bu waxtu julli masaa jot daa nga dem jàpp julli nag ngir wéel nag santaaneb suñu borom bi daana wax ne nag muumi nag mënu koo gaarante waaye muumi mu xamul nag santaane borom bi du ko am moo tax itam nag daana ci xiir nag bépp moomi nag muñ ko tuddee noonu mu ci daa xirtale nag moomi yuñ ko joxoon ba nëgëni itam nag njabootam gi ko wuute itam nag noonu lañ ciy xirtale bépp gone goo xam ne nii nag ñu ko gën a tuuti nag ña ngi ca kër ga te kenn ku ne nag mokkal nga nag ni ñuy sangoo farata xam nga ni ñuy jàppee saa bu waxtu julli jotee la ko ak njabootam di wéyee ndax soxna moomi jógu fii parce que boobu moo amoon nag ci jàng jàngale mu jëlee ko nag ci waajuram sëriñ sëriñ tubaa xaadim rasuul tax na itam nag bi fi sëriñ tubaa xaadim rasuul bàyyi ko lu bare bare bare bare bari ci ndonal waajuram xaadim rasuul itam nag yor na ko moom tu Muminatu Mbàkke ñu mën cee ràññee kaamilu alxuraan nag bu mu doonnoo nag ci waajuram magam soxna Jóob Mbàkke bintu sëriñ tubaa xaadim rasuul nag moo ko bindoon loolu itam nag mi ngi woon ci loxoy soxna Muminatu Mbàkke ay gaal itam mi ngi ci loxoy soxna Muminatu Mbàkke gaal itam nag mi ngi jóge ci loxoy ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul xam naa daal ku dem ci kàggug soxna Muminatu Mbàkke daa yëg ne doomu seexul xaadim bii nag nag bari na lum yor nag ci waajuram jikko yooyu nag mu doon ne ci waajuram sëriñ Tuubaa xaadim rasul ak melokaan boobu nag mu yoroon ci yar ak jàngale loolu itam nag tax na bindkat bi nag di sëriñ Moodu Jóob wax ñu nag jikkoy soxna Moominatu Mbàkke ni mu doonnoo waajuram xaadim rasul ak taxawaay nag bi mu amee woon nag ci yoonu murit ak it nag bi ko magam Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke yóbboo ci Gede ngir mu liggéey fa ak bi ko magam Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke yóbboo ci Daaru Moxti nag ngir mu liggéey fa jikko yooyu daal soxna Moominatu Mbàkke làmboo woon moom la ñu bindkat bii nag di sëriñ Moodu Jóob nag ñu xam nag kan mooy soxna Muminatu Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñu teewlu ko am na ngërëm fa gede ak fa daaru jëfal na leen ay jëf yu rëy yu taaru moo bëgg nit te farlu woon ci diine te sopp baay ba mus la wàcc diine te fonk alquran ba sampi daara loolaa waral baraka samp daara jenn jigéen gi jiitu junniy góor la mooy soxna moom mbàkke ndablu yàlla def na lu rëy diggante daaroog madina lu rëy rëy ba toll ne makka madina sagal na waa mbàkke sagal mbusoobe ndokkeel ko war na mbàkke ak mbusoobe yàlla na fi yàlla bàyyi lool taawam bii barakatul mbusoobe mooy yaaram bi yii jukka fukk la te mooy ku ko jagoo danaa ko lim ban dégg ko noonu ko jagoo moom mus la jaw te mus la xotti xurma te mus la génn nit ne moom mooy xam ku ñëw mu fat njàngal la boole yar la moo mboolem jigéen ñi moom ku am ngaram la moo tabe woon te yaatu dëddu addina moom mus la wax te mus la jëf ngir addina te séddale jikkoom ci mboolem ku mu jur lillaahi moom ku mat la moom moo mën a yar fullaam ja ak diineem ja ak farloom nga jox na ko taw ba boole ko maandoom nga sellal ga ak yaram ba ak noppeem nga jox na ko baali mbàkke ak yaaram nga yitteem ja ak yaatoom nga ak tabeem nga jox na ko faati mbàkke ak yaroom nga na nañ fi sax bala ñu yéene lépp mat ak seeni doom yëpp ba ñëpp ami sa yooyu naanu Cheikh naa Mbàkke ma yàlla na koy war yàlla yaram moom i Mbàkke làqu na waaye jëfam du làqu fii ci àddina soppoon na alquran te sopp jàkka te mos la caaxaan mos la faatub te mos la dañ di haddiyal Cheikh Bamba di togg ay ñam boole ko xaalis ba waat naa moom moo di donay maam jaara moo di satam te kenn gënul maam jaara muminatun muslimatun muhsinatun defal nu xel mu dal mu ànd ak rahmatu bi jaahi cheikhina alxadimi ahmada salla wa sallama al ilahu sarmada alayhi wal ali wa sahbi almuminin walmuslimin almuhsinin alfaishin ginnaaw yar boobu mu mënoon a def moom soxna muminatu Mbàkke ak fonk dénkoon lislaam ak ndonal waajuram wii mu daa sàmm moom soxna Muminatu Mbàkke tax na itim nag ñim bokkaloon ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul moo xam ay waajuram moo xam ay magam ba ci rakkam wala seex si toppoon ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul ñépp itim nag tudde nañ ko doom ngir bëgg nag seenu Muminatu mel na soxna Muminatu Mbàkke moom sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul ñu man cee ràññee waajuram maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru tudde na soxna Muminatu Mbàkke doom magam Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tudde na soxna Muminatu Mbàkke doom magam Cheikh Mamadul Lamin Baara Mbàkke ibnu sëriñ Tubaa xaadim rasul tudde na rakkam jooju nag di soxna Muminatu Mbàkke ñaari yoon doom ñu man cee ràññee soxna Muminatu Mbàkke mi nga xam ne nii mook sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke mii toog xalifa général des mourides ñoo bokkoon benn waajur wu jigéen magam Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke tuddewu ko doom waaye tudde na waajuram wu jigéen wi doom di soxna Faat Sila Libaasa sëriñ Abdul Ahad Mbàkke tudde na soxna Muminatu Mbàkke doom ndax soxna Muminatu Mbàkke mi sëriñ Abdul Ahad woon soxna Muminatu Mbàkke ci kër soxna Muminatu Mbàkke nag la génnee àdduna sëriñ Abdullahi Mbàkke tudde na rakkam jooju nag doom di soxna Moominatu Mbàkke sëriñ Abdu Xaadir Mbàkke tudde na ñaari yoon doom nag soxna Moominatu Mbàkke sëriñ Tuubaa Saalihu Mbàkke tudde na magam jooju doom di soxna Moominatu Mbàkke sëriñ Sohaybu Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul tudde na magam jooju doom nag di soxna Moominatu Mbàkke Cheikh Murtada Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul tudde na yoon doom soxna Moominatu Mbàkke tudde na magam sëriñ Sidi Mohamed Al Abdu Xaadir Mbàkke doom tudde na soxna Fat Silla Libaas doom tudde na soxna Gàdd mi doomu soxna Moominatu Mbàkke doom waa kër Cheikh Masamba Mbàkke di ay doomu bàyyi soxna Moominatu Mbàkke Mbacke tudde nañ seen jigéen boobu itim nag doom sëriñ Moodu May Mbacke moom Cheikh Massamba Mbacke tudde na soxna Muminatu Mbacke doom sëriñ Abdou Salaam Mbacke moom Cheikh Massamba Mbacke tudde na soxna Muminatu Mbacke doom sëriñ Abdou Xabir Mbacke moom Cheikh Massamba Mbacke tudde na soxna Muminatu Mbacke doom sëriñ Moustapha Mbacke Massamba moom Cheikh Massamba Mbacke tudde na soxna Muminatu Mbacke doom sëriñ Moodu Faati Xari Mbacke moom sëriñ Massamba tudde na soxna Muminatu Mbacke doom sëriñ Abdou Baaxe Mbacke moom Cheikh Massamba tudde na soxna Muminatu Mbacke doom sëriñ Mouhamadan Jobbe moom Cheikh Massamba Mbacke tudde na soxna Muminatu Mbacke Mbàkke doom waa daaru moxti itim nag ñu ci takkoo takko itim nag tudde nañ soxna Muminatu Mbàkke doom sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru tudde nañ soxna Muminatu Mbàkke doom sëriñ Basiiru Mbàkke moom maam Ceerno tudde nañ soxna Muminatu Mbàkke doom sëriñ Xamsatu Mbàkke moom maam Ceerno tudde nañ soxna Muminatu Mbàkke doom sëti maam Ceerno yi ñu takkoo takko itim nag tudde nañ seen bàjjen boobu a seen doomu sëriñ bii doom ñu mën cee ràññee sëriñ moor xalima géey tudde na soxna moominatu mbàkke doom sëriñ moor binta ture moom itam tudde na soxna moominatu mbàkke doom sëriñ abdulatif mbàkke moom maam moor jaara tudde na soxna moominatu mbàkke doom sëriñ gede mbàkke bu daaru salaam tudde na soxna moominatu mbàkke doom sëriñ moustapha fall moom maam cheikh ibrahima fall lamp baabul muridina tudde na soxna moominatu mbakke doom sëriñ malik basin si bokk itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul tudde na soxna moominatu mbàkke doom sëriñ moor xari si bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku sëriñ Touba Xaadim Rasuul itam nag tudd na soxna Mominatu Mbàkke doom sëriñ Cheikh Penda moom Maam Moor Jaara tudd na soxna Mominatu Mbàkke doom sëriñ Baara Jaara tudd na soxna Mominatu na soxna Mbàkke doom Njuga Kebe bokkoon itam nag ci milliardaireu Cheikhul Xaadim itam nag tudd na soxna Mominatu Mbàkke doom ci gàttal daal bépp moomi mu ngeen gis ci yoonu murit buñ la tuddewul soxna Mominatu Mbàkke kañ la tudde soxna Mominatu Mbàkke lañ Mbàkke nag a nominatu tax na nag mboolem nag ñi mu bokkaloon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul muy góor ak jigéen ñëpp nag joxoon nañ ko cër ba tax na nag nañ ko seet si saa su ne daa ko nemmee ko itim ndax bintu seexul xadim la daw ñu def dara itim nag te yëgaluñ ko ko loolu moo tax itim nag mboolem doomu baayam yi nag ñëpp tudd nañ ko doom doomu baayam yu jigéen yi itim nag ñëpp respecté woon nañ ko ba tax na itim nag laataa ñu daa def dara daan nañ ci waxtaan nag soxna Muminatu Mbàkke nguurug Sénégal itim nag noonu lañ respecté woon doomu seexul xadim bi ndax fullaam ak dëggoom ak donn nag gu mu donn kanamu waajuram xaadim rasuul loolu itam nag tax na ay doomi boppam muy sëti ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ñëpp nag tudde nañ seen bàjjen bi doom ndax soxna Muminatu Mbàkke royukaay la woon ci yoon wi royukaay googu mu nekkoon ci yoon wi day dëggal na rek képp ku tudd Mumi soxna Muminatu moo tax ndax tur wi moom la mu sax nag ci liggéey di yar ak di jàngale ba ni mu génnee àdduna ci atum 1988 moom soxna Muminatu Mbàkke nag mi ngi génn àdduna ci feebar nag bu ko tëral ci Mbàkke bintu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bisub talaata fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ci atum 1408 ci gàddaay gi talaata fukki fan ak juróom benn ci weeru koor ci atum 1408 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 3 mai 1988 mardi 3 mai 1988 ci xilaaf ak magam nag Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ginnaaw buñ ko yëgalee magam Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke nag la woolu moo ko jullee nag ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi ci mboolem doomu seexul xaddiim nag yi fi nekkoon mu bokk nag ci ñaari doomu seexul xaddiim yu jigéen nag yi fi mujj ndax mook rakkam soxna Maymunatu Mbàkke borom laylatul xadar ginnaaw bu mu génnee àdduna ci fukki fan ak juróom benn ci weeru koor googu ci atum 1408 ci gàddaay gi dëppoog muy mardi 3 mai 1988 sëriñ Cheikh Mbuupa di bindkat di waykat wax nañu nag jikkoy soxna Muminatu Mbàkke nag ni mu fi nekkee woon ci kaw suufa ni mu daa dimbalee ni mu daa jàngalee ak nag donn nag gu mu donn xaadim rasuul jikko yu yaatoo yaatu daal la ñu sëriñ Cheikh Mbuub way yi mu way nag di ñu wax nag jikkoy soxna Muminatu Mbàkke ak melokaanu soxna Muminatu Mbàkke ñu teewlu nag way yi ci sëriñ Cheikh Mbuub def ahousu billahi min asseytaani kay kañu jam tey jàggi mbir yi daane ma jokk muslu tey te dellu jaaju di way satub mam ballo xay saak saaju danaa koy te dellu marsiyaal ko dellu biral lëf ci mbiram teyaal ko Seex Bamba baayam moo ko tudde muumina ngëm-ngëm ko sédde ak dëggal ga yéeme na moo di donay maryaama ummu isa sayidatu nisaa'i rawna siisa moo donn ko waa bintu seexi bamba jigéen ñi moo ci njëkk a gëm yonnen ba salaa wa sallama alayhi llaahu fil aali wa sahbi wa man walaahu sayyidatuna fatima yaa ko donnu yow ku la am tinqam du daar du sonn yaa sell yaa sellal te yaa xam war ma man suma doon lorot ni siiw nga for ma sa njam lu naa xëy gi ma xëy nga ma ngir suma ma doon daaba ni siiw nga yeew ma yaa gën ci nun bàyyen bawoon ca réew ma wattil nu ndeyen nampaloon ca meew ma miskiin yi ak jirim yi ayit luy baayoo yaa leen yoroon ku nekk naa la yaayoo yaa gore yaa maandu te am diine te sàmm selli jëf te selli yéene amoon nga faayida amoon nga fulla te am njëriñ ci ñépp yàlla fal la rafet ji ko njortu te xam teraanga yow soxna moomina xamu yaraanga boo ko gisee muy saamandaay baayam ba ci jaamu ak ci ak fegoog taaram ba boo ko gisaa mu mel ni gis nga bàmba cig dëddu ak cig jige yàlla bóor ba durus ci téere alxuraan di bind la daale géete du jaay du jënd du lekk aqi muslimin du lor nit du tooñ nit it ci genn genn fan nit daawul takkaayoo wurusit mbaa xaalis ngir ragalam ga yàlla loolu laa gis sàmmal na seexu bamba ak njabootam ba xëy ko fekki te ñoŋal na mbootam xam nga lu kenn amul fi nun billaahi xam nga maqaamaatu rijaalullaahi daan nga bakkan seytaane noon ba daw la ak kuréelam ba bari jaal ya naw la yow sa meteel gee faw xa kaala giñ naa ni lii moo fardu xiili qaala sayidi muhammad ak rakam maskuura sa doomi ndeyu xam ya noora bay nga bayaali sini sas ñaraasu daa nga jëfal seex bamba bay miraasu jaaraama ahmadu ummu ahmadu lamiinu sa yaatugaa tax ñépp daa lamiinu yal na la yàlla faytiful sa doom yi barakatoog rakkam yi dolli koom yi maam awa soxna bu sa baali yal na ko yàlla jox ku ñépp faale te soxna maam faati ma nekk déende yal na fa am ku réy ku ñëpp naa cey yal na ñu gudd fan te yokk barke te wér te wérle bun tubaab yi marke ñokk ñu bokkal soxna faati silla seen maam ju tedd ja amoon njëful la ay xalifaam nag nii la tëdde moom soxna Muminatu Mbàkke soxna barakatu bu buso ñu gën koo xam ci soxna gàdd buso bintu sëriñ mbàkke buso moo toog nag ab xalifaam ci atum 1988 ba nëgëni ñu koy ñaanal na suñ boroom guddal aw fanam nag te yàggal ko nag ci toogaayu waajuróom bii nag di soxna Muminatu Mbàkke soxna Muminatu Mbàkke nag am na ay bis nag ñu koy fàttaliku nag yu ñu tudde ak màggal ñu man ca ràññee nag bis bi mu génnoon àdduna di fukki fan juróom benn nag ci weeru koor saa bis bi del si waatee njaboot gi mu fi bàyyi danañ ko màggal nag ci kërug boppam waaye màggal gi itam nag dañ koo yemale rek ci wàccee kaamilu alxuraan ngir jagleel ko nag doomu seexul xadim ba di soxna Muminatu Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa xaadim rasuul am na beneen bis nag buñ koy fàttaliku muy ñaar fukki fan juróom benn nag ci weeru korite saa bu ñaar fukki fan ak juróom benn nag del see nag ci weeru korite des na màggalal nag doomu seexul xaddiim boobu mu dëppoog nag ñeen fukki guddi yi nga xam ne nii ginnaaw bu ñu dëddoo ñeen fukki guddi yooyu nag la njabootam gi nag jàpp nag ngir nag da ci fàttaliku doomu seexul xaddiim gi màggal gi itam nag màggalu bëccëg la li ko dalee nag ci atum 1989 ba nëgën itam nag ñi ngi koy màggal màggalu soxna Moominatu Mbàkke googu nag mook doomam ju ñuy wax sëriñ Seexuna Mbàkke ibnu sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke ñoom ñaar nag lañ boole nag di leen fàttaliku ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom benn nag ci weeru korite yal nañu ko suñ borom fayal nag te yokku ay leeram nag te taas ñu ci barkeem te guddal nag fanu njabootam gi mu fi bàyyi moo xam góor ak jigéen ci dara darajey turam woowu nag di moomi natu lii jafe-jafey réew mi itam nag yal na ko suñ borom saafara ci dara darajey waajuram xaadim rasul amin xaadim rasul amin xaadim rasul amin xaadim rasul amin